Conseil sénégalais des chargeurs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 li mu doon gént mooy gis Touba daa di li nga xam ne mooy màggalu Touba gi waaye nag loolee mujjul am teewul xalifa bi maanaam saa su nekk insisté na ngir nag askan wi jël seeni mesures barrières su dee nag Serigne Babacar si Mansour moom daal nay annulé ziar bi nga xam ne dañu ko doon amal maanaam ci tam xarit gi ba pare nag Serigne bi di sàkku askan wi yëpp maanaam wéy di jël seeni mesures barrières ñi nga xam ne ñooy église bi ñoom ñoo ngi santaane askan wi wàccoo ak li nga xam ne moom la waa kër docteur wax ak mboolem manifestation religieuse yi nga xam ne maanaam chrétiens yi doon nañu ko def église bi dafa wax daal di koy dakkal maanaam ñoom ñëpp ñu daal di say tënkoo yéen a kaay gi di réew mi quotidien ne en tout cas xeex lu jëm ci woppi coronavirus ci réew Sénégal gis nañu si taxawaay bu am solo boo xam ne kilifa yi taxaw nañu ko si yéen a gi di 24 heures bàyyi mbir moomu wax ci livre Thierno Alassane Sall bi nga xam ne maanaam mooy jaaba jonge ci réew meek mbóot yi nga xam ne daan na ko si sulli yéen a gi ñu xëy fekk fa Mamadou Lamine Diallo bu tekki la mu xam nee na lu jëm ci wàllum ressource naturelle moo xam pétrole la moo xam la moo xam fossile la maanaam lépp loo xam ne moomeelu askan wi la maanaam dafa war a leer te ñëpp dañ ko war a xam ba tey ci biir yéen kaay gi moom Mamadou Lamine Diallo nee na Thierno Alassane Sall mi nga xam ne ay jamono moo fi jiite woon énergie maanaam wax na dëgg rendre compte askanu Sénégal tojaange yi nga xamante ni moom la ñi ñu dénk réew mi nekkee ci réew mi yéen kaay gi de Libération xëy si njaayum nationalité sénégalaise gi nga xam ne coow lu rëy la juróon ci réew mi atum 2019 ndax atum 2019 bëri na ñoo xam ne tegoon nañu leen loxo ndax dañoo jëloon ay nationalité sénégalaise di ko jaay ay ay libanais waaye nag ki nga xam ne mooy serveur bi maanaam maanaam kàngam bi ki nga xam ne moo jiite yooyu la tappale kookee ab homme d'affaires marocain la daat nañu koy teg loxo jël nañ ko yóbbu nañ ko sa kaso ba yéen kaay gi Sud Quotidien xëy di ñu xam ne juróon na coow lu rëy ci élection présidentielle 2019 yi nga xam ne moom la ñu génn dialogue politique bi ñoom daan nañu koy supprimer ci élection locale yi nga xam ne moom la ñu dëgma la yéen kaay gi de la mu xëy di ñu xamal laan ñu Guy Marius Sagna mi nga xam ne maanaam moo porté woon plainte Mansour Faye ak Diop Sy ca kanamu na duggal ni rubba yéen a kaay gii di réew mi ko di xëy di ñu xamal lan ñu di président Macky egg na ca Paris la France ni ki démb moo nekk invité d'honneur maanaam ndaje mi nga xamante ni entreprise française yi dañu koy amal seen ndaje moomee li ñu say waxtaane maanaam renaissance des entreprises de France ana nan la ñuy def ba entreprise française yi daal di suqaliku ndaje moomee njiitu réew di président Macky Sall la ñu ko waaye nag dana nag lu jëm ci wàllum bor yi yéenekaay gi wax na ne France maanaam partenaire bu wér la ci réewum Sénégal entreprise française yi am na ak lëkkaloo goo xam ne def nañu ko ak conseil national patronat bu Sénégal yéenekaay gi de Dakar Times xëy ci lu jëm ci ñetteelu mandat yi nga xamante ni bëri na ay jafe-jafe ki coow yoo xam ne andi na ko ci déndu Afrique yéenekaay gi xëy samp ab laaj ne lu jëm ci caxte-caxte ay constitution di andi ay coppite ngir am ñetteelu gi du l'Observateur wax ci njàng mu kaw mi ak université yi nga xamante ni war nañu koo tijjiwaat waaye nag ay jafe-jafey neen soo muy tulee dana sa am ba nga xam ne moo jiitu rawatina ñàkku ndox geeg matukaay yi nga xam ne maanaam war naa gunge ñi nga xam ne ñooy étudiants yi université bu Saint-Louis ak bu Diourbel ak bu Thiès ñoom pare nañu benn fan ci weeru sàttumbar ñu dem jàngi waaye nag su dee bu Ziguinchor ñoom mbir mi dañu ko dàqandi waaye nag waa Dakar université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ñoom tey jii danañu wax ba xam da jàngi wala jàngi wuñu yéen kaay gi di Rewmi Quotidien ak Stades mu xëy di ñu xamal ñu Lionel koy wax kilifa yi nga xam ne ñoo fa nekk maanaam toroxal gi nga xam ne na moo leen ko def defoon ba léegi ni mbir mi maanaam bàyyeegule na entraîneur ba daje na ak Lionel Messi waaye nag ba léegi ni daal mbir ma ma ngay tagga témbe yéen kaay gi di làmb xëy dañu xamal lan ñu écurie Fass soo muy tuule dina dundaal ay jafe-jafe yu métte métti ndax combat bi nga xam ne moo war a dox diggante Gris Bordeaux ak Balla Gaye 2 Gris ba léegi ni waxagul Tafa Gueye maanaam combat bi te Tafa Gueye mooy directeur technique bi te waa sunu làmb ñoom nee nañu bu ñu sukkandikoo ci ay xibaar combat bi Gris war a bëri ak Balla Gaye 2 maanaam daf saa seppi